dunduk sëriñ bi langue anglais lañ ko def fexe ba traduire ko italien daanaka dëkk yi nekk dundal fexe jàngal na ko ñu mën a jàll incha allah di leen wax dalal ak jàmm ci turu commission culturelle pour Tank Touba Brescia tey jii ñu ci sëñ bi liggéey bi nag Mbàkke Balla ñoo ngi ko tënk ci dundam li ko dalee ci gëneem àddina ba ni mu mujjee suñu borom subhanahu wa taala ci saa yi waaye ci liñ gën a taxaw mooy ci jàmm ak sëñ bi maanaam pasi gis bu sëñ bi maanaam ni mu ak noonu yi te mosul yoon am ndax moom jihaatam daf ko tënkoon ci jaamu yàlla ak sàkku xam-xam ndax Mbàkke la moom teel na gis ne képp ku ma sa jël ngànnaay rek ngànnaay moo lay bóor gannaaw bi sëñ bi nangulee yonent bi jaamu yàlla ci moom ci Touba Darou Khoudoss ngir dëkk natt yi ci la sëñ bi jógee Touba dem Mbàkke Baar yi foofe nag fa lañ ko tàmbalee waxal lu nekk yàq ko lu nekk lépp lu bon rek wax nañ ko sëñ bi ak yoonam bi waaye boobu umpale nañu ne sëñ bi juboo na ak boroomam ak sangam ba gannaaw boobu gannaaw loolu la dem Ndar fekk euh, fekk leen fa fekk njëkk loolu daje na ak ñoom jéewal la ko dalee atum la ko dalee atum 1895 ci fukki fan ci weeru ut ci la sëñ bi jànkonteeg ak nit yu métti lu ci mel ne gaynde gu xiif buñ ko booleel bu nekkoon ca jardin zoologique bu soor Ndar waaye gaynde bi daa mujjee doon xarub yar sëñ bi ci la daal euh, ci dalam ak mbaaxam mu ne mukk du def euh, du teg jafe-jafe lenn wala kenn ba tey ca Ndar bisub juróomi fan ci weeru septembre ci la noon yi booloo ni nañ ko yóbbu Gabon ci diggante bi ñu yóbbu ko Ndakaaru mu dund fa lu metti kasa ban ko defoon mu lëndëmoon lool te amoon ay jam-jam waaye sëñ bi nee na saalituma fa boo yoree aseeru danga ko fa fekk mu doonoon ñaari guddi yu metti te tiis lool mu dem sax ba naan su xalaatee yooyu guddi day bëgg a jël xeej ak ngànnaay jàkkaarloo ak noon bi nga gis ni su defee loolu dañ naan andi ci koy sëñ moo tax war nañ xoolaat bu baax a baax a baax ñun ndaw ñi nan la ñuy dundee ak waa réew mi gannaaw Ndakaaru sëñ bi wër na soowu Afrique ngir tere eh, tere si liber wi ca foofu la waxee ne sax fa a ko yàlla fayee la nga xam ne tax na mu raw bépp góor yàlla ca Congo sëñ bi dund na fa lu metti tam tànni nañ ko ci safara waaye na yàlla musale woon Abraham noonu la ko musalee gannaaw juróom-ñaari at bi mu jógee Gabon ko yóbbu ca naar ya Mauritanie mu def juróomi at am na lu sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nettali ca Irwaanu Nadim ca Irwaanu Nadim am na naar bu ñëwoon mel ni ku jébbalu si sëñ bi waaye pas-pasam moo doon jël bakkanam genn guddi la jéem a dugg ci néegu sëñ bi fexe ba jéem a rocc jaasi ji fekk am na ko yëg ci la gaaw boo taalibe yi waaye bi ñuy ñëw lañ fekk jaasi jam yoroon càng ca xayma ga waaye bi ko sëñ bi yëgee da leen euh, da leen te boobu am na mbooloo moo xam ne ku tedd ki waroon na leen a yeewi ca la leen woolu boole leen ak naar bi ne leen fexe leen ba jàllale ko te waxu leen dara loolu lépp di wane ni sëñ bi nekkee nit jàmm gannaaw natt yëpp ci la noon yi xamee ni kii kat nitu yàlla kese la te jàmm rek moo ko tax a jóg ci lañ ko takkalee médaille d'honneur waaye sëñ bi loolu mësu koo itteel ndax tukki bi lu dul jaamu yàlla ak liggéeyal yonent yonent bi tax ko woon jóg nga gis ni léppam ci jaamu yàlla ak liggéeyal sangam bi la ko tegoon natt yiñ ko teg yëpp bi mu ñibbisee dafa jéggal noonu yi te ñaanal leen mu ne ca Muxaddamaatul Amda jéggal naa sama mbooleem noonu yi ngir jëmmi suñu borom mi ma aar sama digganteeg ñoom te gisuma ñariñal fayu jamono ji nag Mbàkke baal la dangay gis ne ñu bëri suñu waxee ñi xeex ak nootkat yi te jëluñu ngànnaay dañ lay lutal waxaat ma Gandhi Martin Luther King ak ñoom seen ñu dem sax ba am ñu naan sëriñ bi mooy Gandhi sa Afrique te loolu ëpp naa wax bañu gàndi ñu bëri dee nañ ci te li sëñ Touba daj ci nattu ma sax gàndi seenu ko li français yi woon sëriñ bi bu ko anglais yi wonoon gàndi asaka ja kon du dund ba atum 1948 at mi ko boomee lii nag ci tënk moom lañ bëgg a xamal ñiy ñëw fii ngir gëstu aslëf ci mbirum sëñ bi ba sëriñ bi daal mooy sëriñ bi gandi di gandi ndax méngale taxut a méngoo te Ahmadou Bamba deesu ko sàkkal maas Mbàkke Bàll fii la jëm ci tënk di wax ne ab tout tànk moo doon nabbi nabbi ci géejub sëñ bi lu ci jub rek ñu xam ni moom la lu ci dëng rek ñu xam ni saa ñàkku xam-xam la di ci tuub bu wér a wér di la xamal ne ñun waa commission culturelle tout tànk Touba Brescia am nañ yéene liggéeyal sëñ bi bu baax ci réewu nasaraan yi di ci sàkku sa ñaan bu baax ndax ñu ngi liggéey itam jëmale ko ci firi téere seen bi ci italien ngir tasaare li mu li fi bàyyi ndax ñi nga xamante ni dañ fee juddoo màggee fi yaroo fi ñu mën a xam as lëf ci sëñ bi noo ngi lay dagaan di yalwaan nga fasaaleel ñu bu baax a baax a baax ba suñu yéene mën a mottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Touba jaaraama Sidi Ibrahima Fall jëf mbàkke ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te sa yéene mën a mottali ko jazakallahu xanaa ñu war la ko tableau yi mu gaaw ñu génn incha allah may leen ko mu xool tuuti tableau yi tableau yi ñu am ko ci expliqué mu gaaw fii moom dëkk bu tedd bi Touba rek lay dajale ci màggal yeeg xeet yu mel noonu ak fan la suñu borom bind Touba ci alxuraan aha ah, muy saar principe fondateur yi Touba li taxoon ñu sanc dëkk bi muy liggéey ak xam-xam moom lañ sanc fii tableau bi ñu ngi ci tënk dëkk bi njëkk ci àdduna bi ñu mooy ci àdduna boo xam ne tere nañ ko cigarette nga xam ne loolu dafa yëm léegi ñu ngi soog a àgg ci di mooy di dégle loolu hôpital yooyu dafa tëb bi daanaka tableau bi baka persécution lañ koy wax mooy tubaab yi laxkal lañ ko laxkal di ko génneeg yooyu yëpp tableau yi moom lañ ci tënk. mooy tableau nga xamante ne dañ ko di ko sonal. Mm-hmm. tamit ba léegi ci loolu la wax ci yenn dëkk yi ñu ko jàllale ci Sénégal. jolof ak Thièyeen ak yooyu Thièyeen jolof yi ko dugal fii mooy bañ ko arrêté 1895 ca Ndar bañ ko war ko yóbbu léegi ci géej gi tableau bi yëpp loolu lay tënk moo tax ñu def ci photo yi ba muy dem ci màggal ak ñu indi lañ ko jiiñee ne day jihaat tableau bi ñoom si loolu lay wax mu ne leen man damay jihaat gaa waaye jixaat ci xam-xam jihaatuma ci ngànnaay jihaatuma ci leen waaye ci xam-xam laay jihaat fii mooy bañ koo génnee exilé ko moom lañ tënk ci tableau bi 1895 moom ci lañ ko exilé 21 septembre 1895 génnee ko yóbbu ko ci tukki fii mooy ba mu dëppee ci tukki gisoo ci bato bi fii photo bi mi ngi wane bato bi ba mu egsee ak ndongo yi xër bi ñu xëroon ci xaar xaarkat yooyu fii lañ ko tàmbaliwaat di ko sonal noo ko minacé tàmbaliwaat di ko sonal di ko wax ni dañoo yëg ni da nga denc ay ngàndaay yooyu ba jël si waat tableau bi wax ci Mauritanie ñaareelu génne dañ ko génne muy Mauritanie boo xoolee moo tax def naar yi foto naar yi sar sar ba mu jaar ak yëpp fi la raconté nañ ko ci tableau bi ci Cheikh ak yooyu. tableau bi 1903 1907 daanaka ci naar yi ba léegi la nekkoon rek moom la ñuy tëkkaas tableau bi. fii résidence sur Ndiarène 1907 1912 fii ñu ba fooy bu nekk résidence sur yóbbu ko Ndiarène yóbbu ko Thièl Thièl soo ko jëlee Thièl yóbbu ko Ndiarène tableau bi ci loolu lay wax. fii nag mooy Diourbel ñu nga xam ni ba mu jugee Thièyène 1907 1912 1912 ba 1927 fa lañ ko téye muy njaareem bisimilah. fii mu ne mooy acteur musulman bu muy dund ak lu muy xeex si jàmm. nee nañ mooy Sëñ Tuubaa acteur musulman bi ëpp ci lu muy xeex si jàmm. Mhm. tableau bi noonu la ci noonu lañ koy def ak fas yéene ñu ko fi dundee fii nag mooy liggéey bu mag. kees ga kees ga meloon ñu xaw ko desee expliqué tubaab tey tubaab dafa xam wax rek dañuy fexe indi moom mooy baale gi mu baale bañ ko sonale ak loolu lépp mu bind ne baal naa jaam yëpp tabla bi ci loolu ci loolu lay wax tabla bi wax ah alhamdulilah tabaarkalla alhamdulilah bisimilah bisimilah waaw dañuy génn waaw xam nga moom la xale yi. مالك الملك يا من جل